Thank you. appliqué de. macha allah kon caaxaan. macha allah après da ñëw. pas de souci. allo. oui. Mhm. ah ah dégg nga expliqué la non sérieusement d' accord mm, wax bu mu mer dinaa dinaa pour dire vrai duma ci fenante. carte yëpp jeexoon na mais y a pas de souci ko dinaa ko au plus tard demain matin incha allah maa ngi essayer trouver solution non non billaay d'accord ah ne ko bu mu si si dinaa ko rappeler au plus tard demain matin kay d'accord mm-hmm. ok ça marche Hey, je te connais Lala. Badiab. Non. Non, grave, ouais. Bye. Mais la tooñati ku la defati dara. mën naa dëkkee nii fi mu ne yuuxu rek laa bëgg. ci connais la cousine de Pape Cheikh. Collé xaw ma cousine am la xaw ma lanam la. Collé. ça fait xaw ma bañ nee dëtmalee bés bi ba tey Collé toogul taxawul lekkul naanul mais tu sais ce dem ci muru Facebook am publier fa mariage bi. Ah. Pape Cheikh mënatul a gis ndax mer daf ma woo démb daf fay xaru ba dama sax waaru. mais loolu war na def lool ci loo xamante ne ni on avait prévu def ko affaire bu simple diine bu ndaw. sa cousine sa cousine dem publier ko Facebook léegi carte yi jeexoon na yow ci savais leen la prévoir. defoon euh, mariage bi simple. mais Collé jàpp nit yi ñoo buggul woon sonal ñoo xam ne bëggoo leen woon déranger bëgg def affaire yi mu ndaw nit yi xoola di la mere. Eh, la déranger sonal yow da ngay ku ndaw asumaan Pape Cheikh Diallo wax ma leneen. yow ma nga yokk carte yi kiki ngi fi mu yokk lekk yi ba mu saf xoolal gis nga man bu ma fontoo laa la nga naan ma ay déranger je ne sais pas quoi. yow man say wax waxuma ko fekk ku xolam dagg nga di ko kokkali man nekkuma ah, ci yooyu. ma puce ma puce wuy yow nag dafa jot. puce yëf yi xam nga ne lu simple lañ ko naroon. non non mais nit ñi may commencé di mere. je sais plus quoi faire. kon eh, dagg na sama xol trop il yow xam nga très bien affaire bi du ndaw du lu ndaw te du ma sa ndaw ab Cheikh Diallo <laughs> ay <laughs> waaye wax ma leneen ma plus. tu n'es pas sérieuse léegi qu'est-ce que nu may def. ma ni nga woo kii mu yokk lekk yi nga yokk carte carte yi affaire yi gën a toll yi est-ce que yaa may dégg <laughs> c'est pas trop tard. d'accord. yaa ngi ci jàmm sant bu baax naka affaire yi sant bu baax waaye yow nag sa secrétaire bi li ma def war na ma koo def mu la def fi ma doon tegtal comprendre mu du ne ma ginnaaw yëngu leen rek boo laajtee sëñ Fallou Coulibaly wala mu ne ma liir ko sax ah yëral ma ma ji nag damaa xaw a yàq cey loolu mhm. na ñaw bi kii nag na tay am taay mhm. am cas yaa ngi dégg ah. xew ma may njëkk lii te samay nawle dañuy ñëw gars yi ñu jógee Espagne États-Unis chinois géwél yi dañuy ñëw tubaab bi seen géwél juddu dafay ñëw dama bëri ay daal samay nawle yu war a ñëw yaa ngi comprendre na ñaw bi baax na rafet xam naa sax di ñëw ñëw bu baax mais maanaam na jël sama taay mhm. na tàkk su ma nee tëll ñu xam ne Collé yegg si na. dégg nga jël waaw laa bëgg mu dar ma dina baax ci bis bi. waaw di ma way daal. loolu dina baax dina baax. xalaatu amoo beneen boo xam ne war na ma a kii dama xalaatul ay borom bëgg ak borom sa war day ëpp. non man mën naa la andi sama xarit Kara. nga ne la. waaw pour mu jàpp ci bis ah, def. épaule 40 ah. waaw jëlal kii rek xool voilà na séntale nag xam nga fi may waxee. na génn ay nit dañ fay ne. xale góor yi ak autorité yi ay nit. waaw Pape moom ki ñuy takk moom tamit nit nit ñi la. nit la waaw Pape baax la aussi. waaw kay waaw ok. 94 taay. 94 waxtaan. yow bindal bindal ngay xoolee nii rek. soo fi jëlal taay. loo ut góor 72. man góor mooy sama secrétaire rek. Ah, ku jigéen kii di bind nag. wala da koo kii nii rek. blouse 38. bindal bindal blouse. da nga tey ba 55. ay cay xaadim. loolu ndaw rek lu doy waar. borom kejete yaa yaa déedéet yàlla na la cat seexlu. billaahi ñawal ma lu. 87 xees. bul wax de. dañuy cat loo koy def si. waaw mi daal li wala. 118 ans. waaw ok cool. yii yëpp da cee bokk. 25 yii da cee fem la. lii moo tax professionnel ba liggéey da nga ciy doon professionnel xaadim yow professionnel. 25 ans. di nga dem ah yow da ngay dem. da ngay dem yow. 30 ok waaw baax dinaa la booleeg ñu bëri. am nga TFM. Ah. am naa fa baat. Mhm. te gars yi fa nekk ñu bëri def ay émission mhm. man la ni kii. Mhm. dinaa indi ñu bëri ay ñoom dégg na ki ñoom yenn éléments yi nga ñëw di leen solal. kii di leen ñawal ndax xam naa ne ñawkat bu mag nga yaa ngi dégg mën na am sama ma boole ak manam fay nga koy defal ay grand bubu mën na nekk nit da ngay gëm sa bopp te yow gëm nga sa bopp dégg nga na ñaw mi nag baax dama bëgg bu ma nee cërëj ca xew ma mhm. ba egsi mhm. borom mariage moom du ma ko daaneel waaye bëgg naa su ma nee cëra ñu mhm. xam ne kole yegsi na Pape Diouf dara ma nee sa xarit bi nu mu tudd kara kara nekk ca wet ba ma ne ci rax jaar si tap ndax tapis la ñuy law il faut ma am nu may jàggat jàggaree am nu may doxee na peri du xuy xuy caméra yi di ma jël en live parce que direct la TFM dégg nga invité d'honneur nga nag na nga ñëw jàppale ma ci bis bi yaa ngi dégg jàppale ma nag déggi na laaj yaa ngi dégg ok collègue amul problème dégg nga jeex na kontaan naa trop maa ngi dem nag léegi kañ laay ñëw yow ginnaaw suba nga ñëw ginnaaw suba mardi incha allah bàyyi ma ñëw suba ci ngoon rek ndax dama bëgg a teel a kii waaw ñëwal suba si ngoon suba si ngoon dama bëgg nga ñëw nag jàppale ma ci bis bi yaa ngi dégg mhm. xew mi Euh, jeudi la. Hmm. mooy mooy la 4. Hmm. ñu ngi koy defee kii ki tërë kii ki tan traiteur. traiteur waaw waaw kii ki hmm. traiteur xam nga ko. waaw Maris waaw waaw Thiam. yow yow yow rokkoy man daal man yow man man yow lii yow lii lan la yow daal rok rokkooy yeeg rok rokaan yëpp xam nga ko. ah dégg naa chinois ak japonais yëpp yaa leen di ñëwal. laf cat laf cat laf cat laf cat yaay sama xarit maa ngi ñëw dem dégg <laughs> dégg sa directeur bi nag li ma la wax ba ci xel. d'accord allez ciao ciao. merci beaucoup dinaa fi jaar dégg. d'accord allez ma ñëpp. nga mën a yàq waxtaanam ko eh Koumbe ana sën loo laaj li nga xëy wax ma ko da nga mën a wax rek ka expliqué ma fii je te cause là ana dama ko yërëm ah da yërëm Assane Lo nu mu fa demee noonu explique-moi. Assane nelawatul Assane solatul normal comme ni ma ko bàyyi woon foofu. comment il était mignon chant galant voilà comme léegi dafa. que des problèmes. jabar ji mayu ko jàmm bë guddi ak bëccëg mu ngi ko def ko pression Assane amatul jàmm jabar ji il paraît que bu koy tegal ki sax comme ça la ko koy tegalee. tout ah ça wax na ma ko nee na amatul jàmm ci këram. daa am ñu koy sonal à part jabar aussi. oui Fatou. ah la dame mu amee lan. c'est chaud pour lui là. xelam baa ngi man yërëm naa ko moom franchement yërëm naa ko te dama bëgg a bàyyi je veux dafa bëgg a changer ko commencé yërëm voilà. s'il te ma puce bëgguma ci wax. nga bëgg ma bàyyi la ci mais du ma la ci bàyyi fii laa doon wax ngay bandi bandi bëgguma ci wax c'est pas le moment. d'accord arrêté nga ma c'est pas di toog fii di bandi bandi fii fii kume Assane loo xam ngeen ni fi ma la waxoon rek fa nga jëm ak moom loo ci génne noonu de ba xam nga ko changé la triste la yëpp a ci bokk yam tuural sa kanam sax soo mënee da nga doon jaay wuyu rek Assane da nga fiy fekk. اصلا lu mu génn sama papa génne na ma sama yaay waxatul te man moo ma suku jur xanaa xaw ma dama tooñ waliw ma daal xamul nu mu demee nii gars yi dund gi may tund sax ko gën da dem kër nit mu daaxala boo duggee kër kii mu daaxala amatuma gaañ amatuma àndandoo man kese la man kese ah, waaye damaa xam ni ah. yow rek dafa dox a xamul rek lan la ci lan la ci Pape Bol wuti. man damaa soog sax ah. ah? nit ñi rek ci dolli fii doxantu sax garaawul waaye fi ma toll ci réew mi ak fi ñu toog nii tey xalaat doo xalaat tey ji bu nu fi jooda mbaay fekkoon fii tey naka lay demee. lijjantiwuma la sax yow ak Jooja Mbaay man sa problème ak Jooja Mbaay lijjantiwuma ko de sama yoo nekku ci doom ji mën maa ko ëmb saa yi ma la soxlaa ñun ñaar a kay bokk ànd moom dafa sëy ba tas yaa ngi dégg dafa sëy ba tas yow tey boo gisee doom ci bii la man loolu lijjantiwuma ko. tey taxawu naa leen. dëgg la la bi mooy pour maman. bi mooy pour maman Goro. bésu Goro comme que nee na dee dee dee dee. parce que day yëre Goro la gën a fonk sax bésam. gis de <laughs> fii waane fii waane ah, ma waxoon waaw waaw yooyu ñu ngi ci. Hmm. waaw même arrivage bi sax ci la bokk. ah arrivage tout waaw yi ay la bi ma la jox nii. Hmm. échantillon la mais am na yeneen bagages yoo la waaw. ah affaire na warul kii de. Ah, <laughs> amul benn problème am a bàyyi bët ma comme daf. jeex na tàkk. yow ñoo far yow. Ah? après loo bëgg dañu kii la ko. fii fi fii amul benn problème. <laughs> jàmbate dañ jeex na tàkk. xéewal yow ñoo far jeex na tàkk Ok, merci beaucoup. Ciao. yow yaa ma def nii saa su nekk heure bu ma la soxlaa da ñëw. ba pare da war a seet sa yëf ndax benn affaire damay sëy te bugguma nga yëngal sama sëy mënu une heure di matin deux heures du matin trois heures di matin ba quatre heures du matin da nga may woo te boo may woo da nga di woote di woote ta man tamit damay bañ a fay sama téléphone ah. ba pare ndax ci dolli dafa dafa ndax ma ma nag yow tey laay wax ak yow ndax yow damaa yaakaar ne samay appel yow samay appel tey la la safut yow da nga daan tëggi ba 4 di ma matin fëgg ma amul heure boo ma fëggul tey résultat baa ngi nii man kese ëmb ma doom ji ñun ñaar ñoo ko bokk heure bu la soxlaa da ngay ñëw lii xoolal sa diggante ak sa jabar li jëntiw ma ko yaa ngi may dégg bu baax li jëntiw ma sa jabar la waaye man man maa ëmb sa doom waaye nga bippee ma sax mu wala bippeewu ma la dama lay woo kar muy sone nga décroché ma xoolal nga fay sa téléphone ma sone sa kër xam nga man dara safu ma as góor nag war dara war na koy saf nag boo séqeek sam nawle muy wax ak yow ci sedd da nga war di ko fekk sa jamono neexul te dëkk bi toj na mais kilifa gu day ni man fii ma toog nii tey ji ah, tamit yow man mii kilifa laa di kilifa nga yow yaa ma def nii kilifa kay moom mooy def nii kilifa man na bëtootuma yow Pape Bol xam nga lu ma bëgg nga mag bu amee sutura moo ko may boppam li ma bëgg dee ma ci fekk si nga am jàmm sa kër wax ji jeex dégg nga ma bu baax man mu ma tekkaleeg jooja mbaay nii laa mel moo tax waaye man du ma moromam yow xam nga loolu sax. waaw amee xalaatoo tey jii fii ne jooja mbaay jooja mbaay fekkoon ñu fii tey jii ñu toog fii fii fii. man jooja mbaay lijjantewu ma ko boobaa yow lay yow muy jëkkëram yow lay waxal man mii mu laal ma mooy fanaani na kaso damaa faale jooja mbaay. tuuti te moom dafa rëy. loolu lépp mu ngi ci de. ah bon xam nga lu ma bëgg. wuy ma waaye damaa bëgg muy xoolaat ngay xoolaat ni ngay def bu baax. ma man tam xoolaat sama yoon nekku ci. yow li ma bëgg dee ma ci fekk si nga am jàmm man kay wax ji jeex na démb su ma la woowee wuyu ma. waaw ah, baax na kon léegi nan nan nan dem kon nan dem. tey timis la suba. bu ma neexee woo la 3 heures matin yow daal del ñaan yàlla rek man ma koy sentir. yàlla baax na ñaari tàngoor mënu ma boole tàngoor bi ak sa wax ji nañ dem. naa jàng sóor tur dem rek yàlla baax na.